بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه na ngi ñëw yéen seen téere wi le wu barkeel wi di taalim al mutaallim tariqa taallum li nga xam ne dooroon nañ ko ak yéen tey nag mooy nekk sunu ñaareelu darso ci تعليم المتعلم طريقة تعلم برهان الإسلام الزرنوجي من يغنى وجعلته فصولا من يعني وجعلته دفنا تروي فصولا أي سبيتر كوكو بليلير سنجلي موي الفصل كوكو من عدفنا تروينا أي فصل أي فصل yoo xam ne mu ngi toll ci fukki fasal ak juróom euh, fukki fasal ak ñett la yoo xam ne wa def naa ko fusulan ay fasal muy ak chapitre moo ana chapitre yan la chapitre wu njëkk mu ngi jàngale fi maiyatil ilmi wal fiqi wa fadli chapitre ñaar ñaareel bi mu ngi jàngale fi niyati fi xaali taallum بيجري نتيلو من جانجل في اختياري علمي والأستاذ والشريك والثبات فصل ينتيلو من جانجل في تعظيم العلم وأهله فصل جرميلو من جانجل في الجد والمواظب والهمة فصل جرم بن الوي من جانجل في البداية السبق وترتيبه وقدره أما فصل جرم نعلم من جانجل في التوكل نتوكرلو فصل جروم نيتيل مي جانغل في وقت التحصيل فصل جروم نيتيل مي جانغل في الشفقة والنصحة فصل فكيل مي جانغل في الاستفادة فصل فكيل بن مي جانغل في الورع حال التعلم فصل فكيل نياري مي جانغل في ما يورث الحفظ وفي ما يورث النساء النسيان أو نسيان, faslu fukkeel ak juróom benn fukkeel ak benn wi nag ñetteel wi nag mooy nekk chapitre wu mujj wa fi ma yajlibu risqu wa ma yamnau wa ma yazidu fi lumr wa ma yanqusu mu tëjee loolu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib loolu mooy nekk suñ darsu tey insha allahu ci taalim al mutaallim tariqa taallum manaa burhaan al islam az zarnuji nee na wa jaaltu def naa téere fusulan ay fasal ay sapitir mu ne faslun aji fasale ji wax ji bu ñu faslu nag mooy na wax ji daal li muy wax ni la génn na ci mu ngi ci weneen wax loolu may tàqale ay wax jëm ci weneen wax ndongi bi boo ko defee loolu dina sawar nag yàkkamti jeexal fas eh, faslu wile la jëm ci weneen fasl kon faslu fasal wu njëkk wi muy chapitre wu njëkk wi kooku mu ngi jàngale fii mahiyatil ilmi mooy dëgg-dëgg xam-xam wal fiqi ak dëgg-dëgg fiq bu ñu mahiya kooku mooy xaqiqa bi maanaa dëgg-dëgg xam-xam mooy lan anal mooy dëgg-dëgg fiq mooy lan wa fadli yi ak ngéneelam lan mooy différence su xam-xam ak fiqu ak seen ngëneel yooyu la kooku chapitre njëkk wi la lay jàngale waaye chapitre ñaari wi nag mu ngi jàngale fi niyatin ci yéene fi xaali taallum ci waxtu jàng xam nga ndongo yu bari nag loolu dañ kaa sàggane waxtu wi ngay jàng mu ana ban yéene nga war a yéene am na loo yéene mi naa déglu ma ci chapitre ñaari bi dinaa la jàngal xamal la loolu te yéene lu am solo la الدعاء صلى الله عليه وسلم دعاني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جسنا جفيف من المعجتيين متغ شعر بدان وغني طلبنا العلم لغير الله فعبى العلم أن يكون إلا لله جسنا ين وون موكو مي موكو يبو بقم قم بني عن الدنيا عند يو نين كيف كو قم نيان يجانغر نيان يجانغر يلا يعني waaye doo ñu jàng mukk nag ngir ak alal wala ngir ak poñeti àddina ak wala ngir leneen ak leneen moo tax shaaru daan wax ni man talaba al ilma lil maati faaza bi fadlin min arrashaati fa yaala al qusraani taalibihi li li fadlin min al ibaadi moo tax sa pisin ñaari burhan al islam azarnuji nee na loolu la ci xamal nag amma sa chapitre ñetteel wi nag mu ne maa ngi lay jàngal muy fasale ñetteel wi maa ngi lay jàngal fi ixtiyaari ilmi ci tànn xam-xam moo ndax xam-xam wala neex jàngam dit wala ustaas jàngal ndax ustaas neex ngay tànn mën a ah addede imaamu daaru hijra mi naa am ah medina jàngalekat yi bari woon na waaye du ñëpp laa jëlee xam-xam si ñoom loolu mooy ñi ngay jàngee mi naa ko kam ñan ñoo lay jox xam-xam wa sharik ak kandoor wi nga àndandoor ci xam-xam tànn ko gis nga xarit lu am solo la bari na ku tayal moo ko yàq moo ko moo ko tayal loo wa sabaati ak sax ci njàng ndaxte nit lum mu saxurat man mënta jot càkkuteefam woowule ma namuzaj muy exemple gis nga gas tati gas gati teen bi bu fekkee dafay gas teen bu gasee ba noppi rek jàll bi ko gas ab diir ne ah fii amul ndox xaar ma gas tuxu feneen mu ne ah dina sonn waaye du am ndox kon nag wa sabaat ak sax burhaani islam az-Zarnuji nee na fasal ñetteel wi loolu la ci jàngal mooy fi ixtiyaari ilm wal usaar wa sharik wa sabaat mi ne ah sa pitri ñeenteel wi nag maa ngi lay jàngal taazimul ilmi wa ali minaa màggal xam-xam wa ali ak ñeñ xam-xam ah Mawlana Cheikh El Hadj Ibrahim daan na tagg nag ay nit minaa ak ñooñu di màggal gi ñu màggal seen borom xam-xam yi ci la seen dëkk woowu naatee maanaa kaw téef gis nga borom xam-xam kaada an yakuna muallim muallim kaada an yakuna nabi aw kama qaal kon nag fi taazimil ilm wa ali sappeetiri ñeenteel burhaanil islam azarnoji nee na loolu laale ci jàngal fasala juróomeel wi nag maa ngi lay jàngal fil jiddi ci farlu doomi aadama dafa war di farlu wal muwaazaba ak taqoo wal himma ak mu am yitte gis nga al muwaazaba mooy mu laazam mooy mu taqoo ci lim nekk wal himma mu am yitte waaye man laa lawul himma falaa yasilu ku amul yitte du yegg du jote ci càkkutéefam mu ana nu mu koy amee téye nga yitte nag lu for la moo lay Cheikh Ahmad Tidiane daan wax ne daal ni immatul insaan qahira ala jamil akwaat kon na burhaanul islam azarnuji sama fasal fasal ak juróome juróomeel wi maa ngi lay jàngal fil jiddi ci farlu wal muwaazaba ak toqoog wal himma ak yitte amaana fasal ak juróom benneel wi maa ngi lay jàngal fii bidaayati sabti ci ndorteelu darsu bu ñaar sabk mooy ab darsu mban darsu nag naka la ñuy tàmbale darsu wa tartibi ak naka la ñuy tartibi darsu bu jële darsu ban moo ci topp ban moo ci topp wa qadri ak ak doyog darsu yi nu muy toll maanaa loolu doy na rat lu alima yi daan wax ni darsul qalil ilmu kathir kon nag burhaanul islam azarnu ji nee na fasal juróom benn bi maa ngi lay jàngal في بداية السبق تندرتل الدرس وترتيبه تفصل الدرس وقدره أك ده درس وولي أمانة fasalek juróom benn juróom ñaareel bi muy chapitre juróom ñaareel bi maa ngi lay jàngal fi tawakkul ci wakkirlu gis nga lu am solo la moo tax Cheikh daan wax ne siq bil ilahi wala tarkan ila ahad fallahu akramu man yurja wa yartaq wa yartaqab nee na wakkeerlu ci yàlla bul jëng jëm ci kenn ndaxte yàlla moo gën a tëdd man yurja o yurtaqab koy yaakaar wala nga koy mina allahu akram yàlla moo moo gën a tëdd kookule manaa doy na rek lu qaadi ma jaxata xala daan dénk taalibul ilmi mi ne wala tubaalu bil qawmi akaza ñibisil wa bintu xaalu ko man na zamin xarami min ay yow jàngkat yu nit wàkkeerlu ci yàlla rek yàlla moom wërsëg moo koy jox ku ko neex te taalibul ilmi nag yàlla ku koy wërsëgal la mina bul faale waxi ga yi nga xam ne ñu la waaye ñëpp si jógal foofu sa doomi ni yaa ji mën sa génération yi takk nañ jabar nga ne ci àll bi rek mina di bay loolu bu ko def kon buraan islam azarnu ji nee na fasal ak juróom-ñaareel bi daal maa ngi lay jàngal fi tawakkul ci wàkkeerlu ci yàlla te wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbu ku yëpp ku wàkkeerlu ci yàlla rek yàlla day na fasal ak juróom-ñettel wi nag burhaanul islaam al-Zarnuji mi ne maa ngi jàngale nag fi waxtu taxsil ci waxtu amal darsu mi naa sa page juróom-ñettel loolu laay jàngil maanaam fasal juróom-ñett juróom-ñeenteel wi muy sa juróom-ñeenteel wi minaa mu ngi jàngale fi shafaqa ci ñëwante woon na sa ak lay biir gis nga taalibe ilmi dafa war a am shafaqa ñëwante ak te am lay biir di lay biir mbokkam yi nga xam ne ñoom lay bokk jàng kooku euh, zarnu ji nee naa fasal ak juróom-ñetteel yu déglu ma lay jàngal minaa ma fukkeeli chapitre maa ngi jàngale fi istifaada ci sàkkoo jëriñu gis nga taalibe ilmi دائما كل يوم دافا ورا ساكو اك نجيرنو واي طالب علم وقمني تاي مو جانغ سوبو دو جانغ منا محمد بن حسن بن عبد الله رحمه الله داني وانا وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبع في بحور الفوائد نينا ايه طالب علم نكل دي ساكو اك نجيرنو تي بيبو بس اك دوليكو wala xarfan dolle ko ci la min al ilmi na nga xuus nag fi buhuril fawaidi ci géeji ak njëriñ yi kon nag burhaanul islam azarnuji mi na fasalak fukkeel bi muy chapitre fukkeel mi na loolu lay jàngale min fi fil istifaade ci sako jëriñ chapitre fukkeel benn wi nag fi lu wara maa ngi jàngale ak sàmm xaala taallum waxtu bi muy jàng gis nga taalibe dafa war a am sàmmute jamono yi muy jàng waaye bu fekkee ne jamono yi muy jàng amut sàmmut lu ko neex lay dugg lu ko neex lay def minaa bàyyil xel aji mooy yàlla ji de yàlla du ko jox xam-xam imaam Shaafi daan di wax ne shakawtu ilaa wakii zu xifzi fa arshadani ilaa tarkil maasi fa inna al xifza ah, fadlun min ilaahi wa fadlullaahi laa yuhda li aasi kon na burhaani islaam azarnuji nee na fukkeeli euh, euh, ak benn wi mi ne déglu ma maa ngi lay jàngal fi lu war ci sàmm xaalu taallum waxtu mi jàng chapitre fukkeel ak ñaar nag kooku mu ngi lay jàngal fi maa yurisu ci lay sabab alxifza wëttu fi maa yuris ci luy donn la alxifza wëttu wa fi maa yuris ak luy donn la adnisiyaan fàtte man xalaat loolu ndonge yi dinañ yàkkamti yegg ci chapitre woowule lan mooy mm, sabab ak ndogge yu mën a li mu jàng xam ko mu mokkal ko mu ànd lan mooy sabab ak ndongal lu mu jàng fàtte ko ah burhaanil islam azarnuñu mi ne ah déglu ma si sa pédre fukkil ak ñaar incha allahu loolu laa lay xamal mi ne fasal ak fukkil ak ñett nag te bi di yem fii ma ci fii maa ci lan yejjibu mu fii maa yejlibu ris risqo bi maa ci la nga xam ne jëlib dina bijj na risque wërsëg wa maa yamna'u ak lay tere wërsëg ba di ñëw wa maa yazidu ak la dina dolli fi l ci dund wa maa yanqus ak luy wàññi ak dund mi na chapitre fukkeel ak benn bi nag maa ngi lay jàngal ana lan mooy ñot di wërsëg ba mu ñëw ci yow ana lan tere tere wërsëg ba du ñëw ci yow ana lan mooy yokk dund lan ma koy wàññi mi naa déglu ma nag sappitel fukkeel ak ñetteel wi daal loolu laa lay jàngal wa ma tawfiqi déedéet sama dëppoo nag ak tawfiq illa billahi loolu ci yàlla bu ma amee tawfiq nag ba bi jàkk mel nu mu war a mel nag bàyyil xel nag yàlla la subhanahu wa taala mooy ki ma ko may tawakkaltu maa ngi ah, maa ngi wàkkeerlu ale ci yàlla te wa unibu maa ngi dellu na ilay jëm ci moom te ci yàlla laay dellu xanaa loolu mooy xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun وكل الميزن درستي إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يعني إيه لما يديك تبدا فلنك دفلينكو الحمد لله دعوان وآخرة والحمد لله من حين إلى حين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته